waaw tey jii moom dañ fee ñëwoon euh, di sant mbooloo mi yét yëpp di sant le monde artisanat ndax dañoo toll ci euh, benn commercial boo xamante ne dañ koo lancé devant toute la nation sénégalaise di wax ne dañoo commencé benn collecte boo xamante ne dañ koo déparé dans les pièces d'identité di ci woo sénégalais yëpp nag pour ñu jàpp ñu ci ndax dañoo soxla mille un million d'électeurs boo xamante ne ay votants lañ ci biir un million d'électeurs yooyu dañ cee soxla ku ci ne nañu may mille francs muy un milliard pour ñu mën a commencer réaliser li nga xamante ne moom lañ bëgg a réaliser looloo tax defoon nañ ko le vendredi passé def un point de presse pour def le lancement de ce projet muy rootiwaat ndax olof nee bu ndox tuuroo an bàq moo ci des mais ñun nañ loolu baaxut ñun dañuy wuti ndox mu bees tàq boo xamante ne bu ñu dellusee fii ku maroon naan di nga naan tokku naanu di nga naan bu mandi ndax foofu lañ toll jamono jii toll nañ ci jamono joo xamante ne yàqal nañu lu bari des centaines de millions génne ñu ci mbed mi depuis le premier ba léegi benn autorité itam recevoir aguñu pour xool suñu situation ñu nekk ay jeunes yoo xamante ne on est mature dans liggéey fii am fi xam-xam jàng métier di ko exercer yor ay xele ñu mën ñoo seetaane nii depuis une semaine tey lay def deux quinze jours deux semaines quinze jours tey ñu ñuy seetaan kenn faalewuñu kenn yëglawul kenn woowuñu léegi comme ñun ay citoyen lañ co képp ku fi nekk ci réew mi di laaj nguur wala nga yor dara ci réew mi ñun xam nañ ne benn carte d'identité bii nga rek nga fi am benn nationalité nga am ñun loolu lañu am. un million lañ soxla te ñu ngi ci trois mille te ci benn semaine rek lañ ko def te bu soobee sunu boroom on va a deux millions d'électeurs boo xamante ne dinañ ko am ndax le monde artisanat c'est quatre-vingt-quinze pour cent de la population sénégalaise. cotisation yi euh, commencé na ndax yaakaar naa def nañ benn documentaire sànq gis ngeen nit ñi rang di joxe xaalis bi di ko joxe mais boo demee ci compte web bi y a des bonnes volontés yoo xamante ne. joxe nañ cent mille francs te ki ko njëkkee joxe jigéen la. waa bu un milliard yi motee ñun dañoo am projet boo xamante ne la cité de l'automobile comme ñoom état fu ñu toll dañ naan mécanicien y de de l'anarchie mais nañu xam ne mécanicien démb ak mécanicien tey bokkul. ambition demb ak ambition tey bokkul ñun ñi dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne on est organisé mais comme ñun fu ñu nekk état itam moo ñu fay teg ba pare jëlewaat ñu fa ñun li ñu soxla mooy suuf si nga xamante ne dañu faa déguerpir mënu koo jox ku ëpp valeur mécanicien mënu koo jox ku ëpp njëriñ mécanicien mënu koo jox kuy développer réew mi ku ëpp njariñ mécanicien kon le monde artisanat boobu dañoo war a delloo loolu loolu lañ suuf si képp kum ko mën a jox économie bi mécanicien mën a def amul ndax man bu fekkente ne am naa fa atelier dinaa am six apprenti six apprentis yooyu am na ñuy dundal keneen noonu keneen noonu keneen noonu kon bu fekkente ne da nga koo def ay immeuble ñetti nit ñoo ciy jariñu mooy le gardien ak mindaan bi nga xamante ne moo koy fobeere ak ki nga xamante ne moo fay toog